ñetti semaine de campagne ñetti semaine yoo xam président moom wër na Sénégal mais principalement ñun ñu nekk fii Ndakaaru wër nañu Ndakaaru waxtaan na ñoom suñu si nañu di leen wax nag ne leen ñu jëm ci 17 novembre dafa bëgg mu wëree Dakar waxtaan ak les Dakarois et les wax ne kontaan nañu ci ni ngeen ñu teertoo daanaka fu ñu dugg sax ñu koy dañ doon wax naan yéen ngi ñàkk seen temps ngi daj seen gasoil yéen ngi daj coono boo xam ni jaru ko dem leen ngeen tëdd ngeen toog seen kër allah. le 17 novembre. daf nag am nañ ne yàlla yàlla bay sa tool. ndax lu ngeen ñu yéene yéene victoire boobu. li gënoon rafet. mooy ñu wàcc seen benn Dakar yi. ñii di ñii di ci marché ci mécanicien ñii seeti musée pour ñu wax leen suñu mébét nga xam ne am nañ ko pour suñu réew ñun nag. fépp fu ñu dem dégg ngeen ni ñu doon campagne programme la ñu tegoon localité bu ñu dem waxtaan ak jafe-jafe yi nga xam ne moo am foofu ak li nga xam ne fas yéene nañu ko def mu saafara ko te yàlla tey ñoom benn programme la ñu amoon le seul programme la violence ak l'insulte maanaam saa yi ñaar yooyu lañ defoon comme programme de campagne te defe naa Sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët sax xëy na ñu leen parce que ku yaakaar ne Sénégalais yi xamuñu li ñuy def wala bu ñu tëddee dañuy nelaw te woo ko yaa ngi naan sa bopp Sénégalais yi yeewu nañu et j'ai l'habitude de dire même que les Sénégalais sont en avance sur les hommes politiques ñun hommes politiques dañoo yaakaar rek ne xëy na wax. Sénégalais yi am xaaj ak seen au contraire ils sont très en avance sur les hommes politiques te loolu depuis quelque temps depuis dix ans que Pastef est né indi une nouvelle façon de voir la politique nouvelle façon de faire la politique defe naa Sénégalais yi ngay kenn mën naa naa wax naa ko léegi génn bi rafet na teer bi rafet na na yëg te dër dañuy am victoire allah loolu amuñu ci xel ñaar li ñuy ñaax Sénégal yi principalement nag di koy ñaax waa Dakar mooy un vote massif un vote massif mooy ñëpp génn fees centre de vote dem voter pour la liste Pastef loolu lañ leen di parce que c'est extrêmement important parce que fi ñu jëm la président Ousmane Sonko wax na ko élection législative bi moo enjeu fuuf élection présidentielle parce que élection présidentielle bi ñu génn c'était une première étape dans la révolution politique et patriotique du am Sénégal tous les pays du monde toutes les grandes nations du monde sont passées par une révolution pour atteindre le niveau développement donc qu'elles ont atteint aujourd'hui, c'est pas de prenez le cas du Japon. Prenez le cas de la Chine. Prenez le cas des États-Unis. Il a eu des révolutions dans certains pays. cette révolution est née suite à des violences am na foo xam ne tey pour pour révolution am am na foo xam ne nag politique pour révolution am au Sénégal au Sénégal ñun Pastef nous avons réussi ñun au niveau de PASTEF a créé cette révolution politique et patriotique de façon politique même si ñàkk nañ ci ay bakkan yu Paris quatre-vingt-trois personnes régime Macky Sall rey na leen pour que ce projet-là puisse puisse puisse naître au Sénégal des milliers de Sénégalais tëj nañ leen kaso des centaines de personnes gaañ nañ leen ñu ngi jusqu'à présent les stigmates de leurs blessures donc mënuñu dem ci première étape de cette révolution parce que c'est une vraie révolution c'est qui s'est passé parce que démb bi ñuy def suñu caravane au niveau de de Bokiba bi ñëw ba école normale supérieure dafa am benn africain bu yoroon drapeau drapeau Guinée équatoriale la. ñu ngi tàllal ñu ko. président Sonko di naan naan la xoolal ma ne ko c'est ça même l'Afrique nous en veut. ñëpp a ngi envie Sénégal parce qu'on a réussi là où peut-être beaucoup de pays ont échoué mais on a réussi ba nekk exemple ba nekk référence un peu partout en Afrique. fu ñu voyager fu ñu voyager les gens nous disent que sont fiers du Sénégal parce que vous avez réussi quelque chose que nous devons tous réussir on a reçu. énormément de gens ici dans notre pays des Africains pour ñëw ñu de l'expérience de donc loolu mënuñu ko ba pare mu nekk mu des la dernière étape pour que définitivement cette révolution maintenant envahisse ce pays envahisse l'Afrique cette dernière étape mooy élection législative yi nga xam ni daanaka suba nañ ci nañ ci lan moo tax nag mu am importance boobu président leader premier ministre du Sénégal moom ak le président de la République le président Bassirou Diomaye Faye dafa am loo xam ni mooy suñu politique moom la ñuy mettre en œuvre te lépp lépp la philosophie de Pastef depuis deux mille dix mooy li ñëpp bokk ñëpp jot ci et que alalu réew mi des ci réew mi doomu réew mi liggéey. c'est ça la vision deux mille cinquante te càmbar nañ ko xool nañ avec des livrables précis muy deux mille vingt neuf ak deux mille trente cinq jusqu'à deux mille cinquante am na projet bi naka lay mën naka lay koy naka lañ koy doxalee. donc ñu ne pour que loolu yëpp nga xam ne mébét nañ li ñëpp bokk ñëpp jot ci te commencé na avec les accords de pêche nga xam ni. tey jii nii Sénégal kañ na ko renouveler dans les mêmes conditions que nga xam ne ñu fi nekkoon moom moom la ñu moom suuf si ñu ngi koy jëlaat notre vraie indépendance économique sociale et politique commencé na mun parce que y a des aspects immatériels yi di def mooy defaraat yàq-yàq mais à partir incha allah de deux mille bis bu ñu demee ba dem assemblée nationale que les vraies les vraies lois les vraies lois révolutionnaires soit c'est des sont des projets de loi mooy yi nga xam ne day jóge des propositions de loi yoo xam ne ci ñun ñii lay jóge lois yi nga xam ne mooy tax Sénégal définitivement nekk sur la rampe développement un développement endogène que les Sénégalais eux-mêmes vont mettre en œuvre wax bi nag dañuy tëju nous ne serons pas dans l'autarcie Non, comme on a Non, non, non. benn wu ñu rek la kese la. non on est ouvert. au monde mais li nga xam ne moom mooy développé Sénégal dañ naan moom mooy développé Sénégal c'est la philosophie politique et économique de li ñu xeex nag li ñu xeex yëpp def li ñu def yëpp moo ko sax ay nit de ñii tëdd kaso ñii ñiy porté l'expériment de notre blessure ay suy tas ay kër tas bi le Sénégal est divisé en deux parties tey yàlla dimbali ñu ak manque de difficulté yooyu yëpp ñu jël réew mi egg si fii mu des benn étape étape la plus importante mooy élection législative yi ñu ko caaxaan moo tax ma ne parce que caaxaan ngeen ko yéen Sénégal on vous a écouté on vous a entendu di wax sànq je j'insiste que ni Sénégal yi kenn du leen nax parce que il suffit de discuter ak ñoom koo dajal ci mbedd li mu lay wax mooy vous êtes notre dernier espoir. bu leen yaakaar yëpp dañ leen topp rek ndax da ngeen ñu neex dañ leen a topp parce que dañoo am yaakaar ci yaakaar boobu yàlla bu ko yàlla tas. maintenant nag pour ñu dem ci yaakaar boobu pour mettre ko en œuvre il faut que Sénégalais yi ngeen massivement voté le 17 novembre. prenez la part des choses. entre ceux qui ont opté pour la violence et l'insulte et ceux qui ont opté pour un programme gis ngeen leer na nañ amul fenn ñu fu ñu xasee amul fenn fu ñu saaga Sénégal la ñuy waxtaanee ak li ci nawet donc le 17 novembre ñu leen di ñaan ngeen génn ngeen ko n'écoutez pas ñi nga xam ne ndeysaan nekkoon nañ fi 60 ans ñi nekk fi 40 ans ñi nekk fi 20 ans ñooñu wóor nee na ñoom ñoo ñoom ndeysaan bu changé di dig ba liggéey loo xam ne seen prérogative parce que assemblée nationale. assemblée nationale moom mooy taxaw assemblée nationale ñu fay voté ay defar mais c'est pas l'exécutif assemblée nationale mu décidé yenn yi dégg nañ fi ay nit sax jox naan ñoom bu leen defee réew mi sax avion du naaw waaw salaire duñ ko fay kooku wax na exactement li mu yéene Sénégal ko nattoo loolu moo nekk ci xol bi te incha allah du ko am kon le 17 novembre Sénégal yi génn ko incha allah peut-être cette révolution qu'on a commencée qu'on puisse la continuer et qu'elle puisse aboutir xale yi gis nañ leen ñu am ay dix ans quinze ans topp caravane yi di daw gis nañ ci xale yoo xam ne dañuy xëcc seen yaay yi seen bopp nga la ngeen topp ci caravane ces enfants là qui ont quinze ans seize ans ñooñu ñoom ñooy avenir Sénégal ñooñu la ñuy ces jeunes là sur les balcons qui courent derrière nos nos caravanes et principalement derrière la caravane du président Ousmane Sonko ñooñu ñoo tax ñuy xeex te gëm naa ni incha allah ils ont compris ils ont le 17 novembre dinañu fexe ba ñu mottali yéene mais ñëpp génn voté je demande à a les cellules au niveau du département de Dakar principalement au-delà du niveau national nañu dugg ci kër yi nañu génne mag ñi ñu génne jigéen nañu génne góor bu kenn des il faut que le vote soit massif moi je n'ai pas de par rapport à la victoire daf ma leer ni nañu ko ni ma la jeexal ma leer comme waxaa la victoire mais nag ampleur victoire bi loolu lañ ko dañu cent cinquante incha allah. Dakar avait enregistré deux cent de l'élection présidentielle deux cent parce que voix yooyu yi am concours départemental mu ngi dimbali la liste nationale loolu il faut que ñu xam moo tax bu nit ñi d' accord incha allah gañe na ba mais naka la gañe fekkee Dakar sept députés dañuy jàll d' mais avec moins de deux cent mille la liste nationale donc ñu ngi le maximum de possible pour supporter la liste par le président Ousmane Sonko. beneen bi ma wax lii li mooy suñu spécial li tax ma di ko wax mooy xam nga ay tappalekat yu dem parce que seen adduna yëpp dañoo tricher et c'est ça qui est à l'origine de tous leurs échecs tricher la ñu xam sàcc alalu réew la ñu xam façon immatérielle parce que dañoo jël suñu je le dis boo kenn jaawale xam na leen am na parce que xam nañu parce que verre ku jaxase xel nit je sais que les gens danañ ci bàyyi ndax bu bu sax di ngeen ko xàmmee ndax bii moom mooy Pastef bu ngeen foto bu leerul bokk segg baa ngi na ko ñëpp xàmmee parce que am na benn waay doon jàngal président Ousmane Sonko nga xam ne taat rek ak daw jàngale ñu jox ne ko tungaay ñu jox suuf mu ne ko tungaay amoon benn couleur bleue à l'élection présidentielle bàyyi ko fa ñëw jël couleur verte mooy Amadou Ba xam nga leen ko mu daan sàccee alalu réew mi loolu la bëgg a yaakaar ne mën na tricher ba nit ñi jaawale ba nit ñi jaawale espèce bu leen ko jaawale bii bii incha allah xame na xam naa sax xame ngeen ko mais gën leen ko xam beneen ñi nga xam ne ñëpp wax dëgg yàlla jàppoon nañu ci liggéey ñi nga xam ne ñëpp jàppoon nañ ci liggéey di remercier euh, c'est un sentiment extraordinaire qui mane su ma xoolee caravane que ça soit suñu caravane ak caravane présidence quand je vois ces jeunes-là surtout waa GPS góor ak jigéen jàpp ci liggéey bi d'une façon extraordinaire le directeur de campagne Djamil Sané que je félicite dinaa ñëw ci moom sax mu nga mu ne quand je regarde ces jeunes là xool waa Procope xool waa Jumès sama yaram lay daw. vous avez été extraordinaire. maa ngi leen di remercier je n'ai pas les mots pour vous témoigner vraiment les sentiments que j'ai en vous yéen waa Jumès. jigéen ñi waa tous les mouvements surtout waa CAPS aussi kenn mënu leen fay parce que am na ñu bëri ñu ma woo dama ñii lan nga leen defal ma ne ko ils sont sur TikTok ils sont partout pour ñu defal maa ngi leen remercier maa l'équipe de campagne l'équipe de campagne maa ngi leen à travers le directeur de campagne Cheikh Jalil Sani Makhtar Mansour du chef Mohamed ñoom ils sont de la jeunesse mais ils sont polyvalents ils ont été parfaits. beneen wax na leen nag jour vote bi kuy voté ji bul sol dara dara loo xam ni day wane fi nga bokk bul yàq sa la bracelet yi sax tekki leen bu leen sol casquette bu am Pastef wala jub jubal bu sol lakkos bu am bu leen demee seen vote day bu leen dugg ci de vote ak bu leen liggéey ba pare monsieur boobu ngeen yàqu loolu bu leen ko fàtte. nag wax naa ko waxaat ko ci ba ci ñëwaat nag li ci des le novembre le 17 novembre à 18h30 je vous invite tous ici au siège inch'Allah 18h30 on va finir on va finir la victoire pour le département de Dakar. république Sénégal benn may ma def ma defal nag une mention spéciale à le président Ousmane cet homme pour qui nous nous tous qui est l'espoir de tous les Sénégalais ma koy wax desalatuñ ko dara il nous a tout donné gis ngeen li mu def Dakar bu ñëw ak ñun gis ngeen ce qu'il a fait le Sénégal de la révolution enseigne le portrait de la révolution bu dul nos petites personnes ñu xeex parce que il a tout donné à ce et il mérite que le pays le consacre le 17 novembre. le 17 novembre c'est le président Ousmane Sonko qu'on va consacrer parce que Sénégal yu bëri dañoo bëggoon ñu bokk élection présidentielle photoom lañu bëggoon gis mais Sénégalais jàpp leen élection présidentielle lañ nekkaat parce que c'est sa photo. parce que bi ngeen bëggoon gis dugal ko ci commune bi yàlla def na loolu am na te li ci seetlu waat profiter pour le plébisciter comme ni ko defee ci mbedd yi pour wan ko moom lañ bëgg li ci seetlu waat wan nañ de façon massive que c'est lui notre espoir notre seul et unique espoir avec son frère et ami le président Bassirou moo profité pour féliciter président Bassirou ñaanal ko yàlla defal ko jàmm ba yéene bi xam ne ñun ñëpp am nañ ko ci Sénégal yàlla def nekku ci ay loxoom yàlla taxaw ko jàppale ko au delà de tout pour que li mu namm pour Sénégal avec le président Ousmane Sonko donc loolu li lu matal loolu laa amoon lu may wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla yàlla def jàmm jàmmal dafay am les gens ont tenté yaakaar ne mën nañu déstabiliser réew mi pour le faire parce que ay nit ñoo xam ne tekk wu ñu daara seen adduna yëpp yàq la te Sénégal bi nangu ñu yàq Macky Sall dafa waxoon daf réduire dans notre puissance d'expression quand je le vois j'ai pitié de lui mu nekk ci groupe WhatsApp bi je crois qu'il a perdu la tête actuellement dañ ñaan nag mu toog mu yem xam ne Sénégal pare la dootu di toog ay balcon la ñuy toog dem ba yàlla natt leen ba ñuy loo xam ne sax dépasse lan am moom ñoom aussi dañoo xam ne politiquement le 17 novembre on va les entendre le 17 novembre c'est une nouvelle ère politique mooy Sénégal parce que seul a vaincu le système Bunlar da Texas'a gideceğiniz ben yapmaz. Mufat Ali, Mufat Ali, Gülen Santos, Gülen Kırıl, Sinirsen Hawaii. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous oublie, au contraire. Vous avez été avec nous, surtout nos alliés historiques, vous avez été avec nous à un moment donné, vous avez accompagné, vous l'avez dit, le 17 novembre, vous l'avez fait. il y a une génération de quatre-vingt-dix à vingt trente-cinq ans ñoom ñëpp dañ leen yóbbu retraite quatre-vingt-dix ans doy na da ngay dem retraite cinquante ans doy na da dem retraite mais il y aura des jeunes soi-disant hommes politiques parce qu'ils ne sont même pas des hommes politiques un homme politique c'est par rapport à des valeurs c'est pas par rapport à autre chose ñooñu le 17 novembre on va tous les amener à notre liste, Inch'Allah. Vous allez voter pour la liste nationale, Inch'Allah. Et je vous invite à venir, à venir danser. Est-ce qu'on va mettre une musique de 17 novembre Hein Hein Bougarabou. On va danser le Bougarabou le 17 novembre ici. On ne va pas danser le jazz, malheureusement. C'est le Bougarabou qu'on va danser. Jërëjëf. maa ngi ñëpp di sant ñëpp alhamdulilah. merci beaucoup.